que li ma fi fekk euh, dal na sama xel ndaxte lépp jumtuwaay yi ñu yi ñuy soxla moo xam abri provisoire yi ngeen gis moo xam bulletin de vote yi moo xam encre moo xam enveloppe moo xam urne moo xam euh, euh, bañ gàcce yi lépp lépp lépp egsi na non seulement egsi na mais daanaka nit ñaa ngi ciy liggéey pour que bes balaa bés bi ñu mën koo distribuer ba nga xam ne bu dimanche du am benn tardement ci liggéey bi ah, loolu moo tax may gërëm ah, directeur général des élections ak équipe di gërëm autorité administrative yi jiital ci gouverneur bi teg ci préfet yi sous préfet yi mais di gërëm aussi prestataires yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ba nga xam ne li nga xam ne habituellement ñoom ñoo ñu koy jox moo xam ay abri provisoire moo xam confectionné ay table moo xam lu mu mënta nekk ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci élection yi pour ñu am ay élection yu normal comme ni ñu ko daan defee mu mën a déroulé wu ñu mën ko amee ni ko ni ko yaakaaree ci ñun ah, mu nekk woote bu bu gaaw mu nekk woote bu bu yomb bu ñëpp euh, ñëw def seen devoir citoyen ci jàmm wàllu kaaraange gi ni ñu ko daan moom lañ koy defewaat dana am waa police dana am gendarmerie dana am sax ci yenn boor yi waa armée nationale ñu leen di jàppale pour surveiller bureau yëpp ba nga xam ne euh, amul kenn kuy am sañ-sañu euh, gàllankoor liggéey nit ñi loolu loolu moo tax ñu leen di indi kooku mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiital waaye ci gannaaw ñooñu dana am ñoo xam ne du ñu nekk par benn benn ay lim bu takku la ñuy nekk bu fekk ba nga xam ne bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne Euh, seen yéene mooy yàq euh, ñu ñu mën a jàmbaarloog ñoom bu fekkee jar na ko. bu ma leen di wax euh, sunu niveau de préparation dama ne non seulement li ñuy jumtukaay yi soxla ci bureau de vote yi añu nañ ko waaye rax ci dolli département bu nekk am nañu benn lot d' équipement boo xam ne dañ ko ber pour compléter lépp loo xam ne mën na am mu yàqu ci diggante bi wala mu am manquement ba nga xam ne doo soxla dellu dellusiwaat ba dakaar pour compléter lu la pour localité localité yi nga xam ne bërëb yi nga xam ne dañu xaw a xëcc moo xam Kédougou moo xam Matam Bakel moo xam Tambacounda moo xam Kolda wala Sédhiou préparé nañu benn avion boo xam ne moom moom tamit pare na à partir de samedi ba ci dimanche dans au milieu de matinée euh, fépp boo xam ne soxla nañ lu ñu fay yóbbu moom la ñuy moom la ñuy yónni mu dem defi ko